chéri. eh dama laa posé question dama bëgg nga tontu ma ci li ma la wax. Jatu mi kan mooy papaam laa wax. yéen lan moo xew fii sa papa lan lay wax nii. mais da ngaa bëgg a dégg dëgg rek sa rakk la. chéri. taxaw xam lu ma bëgg kan mooy papay xale bi. eh ma. kan mooy papay xale bu jigéen bi. looy wax nii. xoolal maa ngi jógee centre test ADN fa laa jógee gis nga kii damaa bëgg nga wax ma kan mooy papay xale bi. et eh, dama laa posé question dama bëgg nga tontu ma ci li ma la wax jatu mi kan mooy papaam laa wax. eh yow may wax ak yow dama wuyu ah. yow lan la. xamoo na la. déedéet kan mooy papay jatu. lan mooy kii kan mooy papay jatu. dama ne kan mooy papay xale bu jigéen yow lan mooy sa problème doom ji nga jur moom nga may laaj kan mooy bàyyi. uy ma dama bëgg nga tontu ma ci li ma la question yi la posé dama la ne kan mooy papay jatu loolu laa la wax kan mooy papay jatu man nga maa wuy wala mënuloo maa wuy. yow sax fan nga jógee. xoolal centre ADN ba fa laa yaa ngi dégg xam naa lépp nag dama bëgg nga wax ma kan mooy papay jatu loolu laa bëgg. te xoolal bu ma tax a meeram ma la bëgguma def lu mu bëgg la def wax ma kan muy papay jotu dégg ma la. te defal naa boo defee nànk rek ñu waxtaan ndax yow xam nga ni man yow rek laa bëgg. léegi nag. dalal rek. mais dama bëgg a xam dama bëgg mu leer ma ci sama bopp kan mooy papay jotu loolu laa bëgg a xam wax nga ko. ci papay jotu. lu tax du ma mais lu tax bu fekkee ne. papa àndul lan moo xew fii. war na tegg sa bu ma papa bu ma papa la dégg nga ma la laaj waxal ak sa yaay nii mu wax la kan mooy sa papa laaj ko ko. yow papa loolu dama ko laaj sama yaay yow yaay sama papa yow yaa ma jur. eh laajal sa yaay nii kan mooy sa papa. yaay lan moo xew fii sa papa lan lay wax ni xam nga lu ma bëgg nga jàll sa néeg mi ay mag dañuy waxtaan. eh bu dem taxawul fii taxawul fii laa bul bouger un mètre taxawul fii parce que lépp dafa war a leer waaw. kii damaa bëgg wax ma kan mooy bàyyi doomu maa ngi jéggalu ma lay ñaan nga baal ma àq seytaane rek a ma jàpp te xam nga ne ku la bëgg laa yow loo def bu may jéggalu wuy ma lan nga def bu may jéggalu chéri su ma nee baal ma àq te seytaane rek a jàpp sa xel war naa juñ ci dara. ci la. yaay yow tamit waxal lan moo xew yow lañuy déglu. chéri yow da ngaa bëgg a dégg dëgg rek sa rakk la Touré. Touré nan ma mën a defee nii. ah non non déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet mënumaa gëm loolu mënumaa gëm loolu mënumaa gëm loolu gëm loolu du dëgg du dëgg c'est pas vrai du dëgg du dëgg te mënu maa def lii. mais nan la ma koy defee. man dama laa bëggoon a bett dama laa bëggoon a bett ndekete yow yaa mujj bett ah yow ma bëgg laa bett amoo leen looy def dul di ma bett lii ah yow yaa mu rusloo. ay yaay yow yaay yow yaa ma mën a def lii yow yaay yàq nga sama àddina yow yaay yow yaay ndekete yow temps bi yëpp yow sama papa juruma kon Touré moo ma jur. waaye léegi laay woo Touré dina xam lépp dëgg la allo yow yow yow yow tontu ko ko lu la war a woowee sax ndakate yow yow yaay sama papa. al al am na ko nii al am na ko nii eh, jox ma lii amoon na ko yow yaa ma bett dëgg dëgg dëgg yow yaa ma bett yow yow. yow amoo looy def yow bi sama papa dund lu ma am defal naa la lu ma mën defal naa la ko bi sama papa gaañu ma defal comme ah? loo lu ma am jox la amoo leen looy def li ma def lii yow yaa ma pet dëgg dëgg dëgg keroog ba ngay wax ak man téléphone allo allo oui ça bien non maa ci kër gi ah waaw ah, ah. waaw d'accord ok ok tout à l'heure ñi man lañuy teg di <laughs> dootuñu ko defati <laughs> ñi foog ma lalal leen benn plan jaara naam yaay ma ñëw eh daw si gaaw. lu xew ni ñëw toog. maa jàmm la jàmm ak salaam. doom. waaw. sa baay de nee na man mars bi. teg diir. loolu de la def waaye nag damaa bëgg. ñu wan ko ni ko sa papa de dootu ko defati. dootu ko defati. moom la la nar noonu. laaj nga ma bu jaral laaj. sa baay de ak magam dañ may laaj. kan moo la jur kuy sa baay. fan ñi lan moo leen dal nii waaye bàyyi leen foofu danañ xam ne ñun lañ fiy fekk. moo tax nag lu bëgg ñu joué ko ba mu jeex wan leen ni ñun ay jigéen ñi te ku ñu woo ci jeu ñu fekk si leen. yaay bu la dara metti ñi bu ñu ñëwee danañ xam ne ñun ñoo leen daa kat teg din nag. <laughs> kontaan naa ñun neex. loolu lañ desee xam. <laughs> ñii dañuy rey ñu état lañ ma def sax ba ñu ñëw fekk fii la ñuy fekk sax nag. wax ak man yaakaar ni coupé nga fekk coupé woo de. Hmm? la nga wax ak Touré yëpp dégg naa. ah ngeen ne dangeen may teg dil ci 8 mars bi. ma wan li leen mënu leen. ñun ñii ñoo man bii moom am nañ leen. ñu ne la ñu pexem jigéen dëgg dëgg dëgg dëgg góor daal lu mu rëy rëy pexem jigéen xajul ci moom xaw ma maa dof loo baal naa ko. lii moom lu mu doon. ma loolu surprise. ma la surprendre xoolal laa lay jënd. xam nga le ko salaamaaleykum sama xarit yi sama amu jaam yi tey nag maa fi ñëwaat di ñaanal képp koo xam ne jigéen la ci fête yi nga xam ne mooy 8 mars te xam ne jigéen ñoo jigéen ñee ko moom euh, naan leen ñu gën a góorgóorlu góor ñi it ci 8 mars bi leen wax naan nañu bégal jigéen ñi ndax benn bis boobu rek lañu am góor bu ci mën a togg toggal góor bu ci mën a togg togg yàq yàqal. góor gu ci mën a dem marché marché demal marché bu ci mën a indi ay cadeau yi indil ko sa jabar ndax jigéen kat kenn mënu koo fay te pour man nag 8 mars benn bis boobu koy féete pour jigéen ndaw na pour man chaque jour jigéen da koo war a féete ndax jigéen moo yor réew mi jigéen moo jur président jigéen moo jur wàllu jigéen moo jur lépp kon benn fan boobu ndaw na ba tax na ñi ngi sàggal képp koo xamante ni jigéen ngay yaay ngay jabar ngay doom loo mënti doon doon jigéen ñu ngi leen di ñaanal wér gu yaram ak gudd fan wasalaam. waaw jaajëf dama lay dama lay rek parce que jigéen moom kenn mënut a am lu bëri parce que jigéen mooy àdduna te bu ñu am na part yàlla moo sàkk àdduna pour jigéen mooy àdduna benn bis moom tuuti na ci yow. waaw ah, waaw waaw mais nag góor nekk na nga jàppale bis bu nekk rek feet la pour jigéen. soo amee cadeau boo ko jox nga jox ko di ko jégal di kaf moom di rey moom ndax yàlla moo la boole moom te ki yàlla boole mu nekk sa meññaafu nga xam ne nii vraiment ci ngay gis say fruits muy sa njaboot boobu da nga ko war a fonk respecté jigéen ay togg muy fóot muy paase muy bale muy dem marché sa gannaaw moo ko nekk kon kooku kenn du fay kon daal ñu ngi ñaanal jigéen ñi seen marché bi yàlla na ko fekk ay ati ati ati vraiment jigéen bu saa su ñëwee nii waajal ko waaw. maa ngi souhaité sama mbokku jigéen ñi di leen ñaanal si 8 mars bi tamit yàlla dafa leen jàmm yokk xéwal yi sutura si di ñaaxaat suñu mbokku góor yi tamit benn jour sax doy pour pour pour sargal jigéen ndax jigéen mooy mooy àdduna mooy lépp kon suma sama papa yeeg sama nijaay sama tontooy dama leen ne ñaax ngeen gën a jàppale jigéen yi gën leen a toppatoo di leen di jëndi di dox seen i waaw xool seen bëgg-bëgg di leen offrir ay cadeau tamit ci la bokk di leen jabar yeeg seen ngeen nekkal ay cadeau di leen neexal di leen wax wax ju neex ah loolu daal mooy yoon maa ngi ñaanal jigéen ñëpp si àdduna ji di leen souhaiter bonne fête Merci beaucoup.